أحمد بامبا كن لا أحمد بامبا كن لا أحمد بامبا كن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم اللقاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله بوكي جنا بني سنتي الله جل جل النبي صلى الله عليه وسلم ñoo ngi ndokkeel ummatu islam gi yëpp ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ni tey ñoo ngi ko doon julli iid fii ci quartier bi di Hersent ci jumaa ji nga xam ni suñu sëriñ suñu kilifa suñu soppi suñu xarit moom la fi yàlla sant mu doon imaamu ratib bi di Cheikh Mouhamadul Fadil ñu koy ndokkeel moom tamit di ko ñaanal suñu boroom dolli taxawaayam dolli koo kattanal dolli koo dëgëral bi jaay seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam di sant mbokk yi nga xam ni ñoom tamit bi sànq ba tey ñoo ngi ànd ak ñun julli gi ànd ak ñun xutba gi ànd ak ñun jotaay bi ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay bu rafet ndax tamit njariñ li fii rotee wax dëgg yàlla waxuma Sénégal waaye bu ñu sañoon àdduna bépp dañ ciy jot ndax njariñ la goo xam ne fu mu tollu jamono da koo soxla lool lool naka jekk da koo mos soxla rawatina jamono yi nga xool nga xam ni tey bari na julli ñi bari ñoo ngi tàqali ñoo ngi wanante ginnaaw ñoo ngi sànnante ay kaddu yu ñaaw ñoo ngi jëflante jëflante goo xam ni loolu loolu lislaam jàngale lislaam li mu jàngale woon mooy bennoo ñëpp tënku ci baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah kon yonent bi sallallahu alayhi ci loolee la nekkoon loolu la ko yàlla santoon mu koy woote dajale ci jullit ñëpp sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn ku nekk rek gëm nga yëg ci sa xol ni yow sa moroom moo la gënal sa bopp kon loolu moo taxoon tey ñi amoon jàmm gi ñu am loolu moo taxoon lépp lu ñu sóobu yàlla may leen ci ndam loolu moo taxoon ñu dem ba yilif àdduna li leen ko may du dara lu dul bennoo waaye bu fekkoon dañ doon tàkkalikoo bu fekkoon dañu doon féewaloo du ñu mësa a yilif àdduna kon ba ñu demee ba tàkkalikoo commencé am la lislaam tàmbalee ñàkk dooleem kon doole googu lislaam doon ñàkk mbokk yi ñàkk na ci lu baree baree bare ngal la liñ fi jot a dese nag ñun ñoo ko war a téye ñoo ko war a sàmm ñoo ko war a saytu te liñ koy mën a sàmmloo luñ koy mën a téyeloo du dara lu dul ñu bennoo comme ni ko imaam waxee kon xutba bu fekkee ni topp nañ ko li ci ëpp solo lépp rek boo xoolee kàddu imaam lépp lu mu jëm mooy nañu bennoo noonu la ko xalifatul am di taifatul murid yi a cheikh mouhamadul muntaxal bachir loolu la digale te noonu lañ ko defee imaam ci loolu la tënku wax jullit ñi naka la ñuy def ba bennoo te mooy kenn ku ne respecté sa morom kenn ku ne la nga nekk nga gëm ko te xam ni lu baax la keneen lu mu nekk nga gëm li mu nekk te xam ni loolu lu baax la buñ ko defee rek incha allahu ñun ñëpp fi ñu bëgg àgg dinañ fa àgg te mooy xadaratu ilaahi kon daal loolu ñoo ngi leen koy ñaaxaat ñi gën a tënku bàyyi kàddu yi ñaaw yi bàyyi wax yu ñaaw yi rawatina lu jëm ci internet bi kenn ku nekk di sànnante ay kàddu mbokk yi loolu day gën a jur ak féewaloo di nga gis loo xam ni sax lu ñaaw la muy wax muy muy muy image waaye yow bul topp wax ja bul topp image ba fadfa billati hiya ahsan loolu la yàlla digle nit ki booy fay rek fayal la gën a rafet waaye bul topp kenn ci waxam ju ñaaw buy topp kenn ci jëfam ju ñaaw kon loolu bu ñu ci tënkee rek kenn ku ne sax ci loolu insha allahu dinañ gën a tënku ci bennoo yi kon bu ko defee rek imaam li mu fi rotal doy na euh, bari na waaye dañ koy joxaat rek incha allah bu ko defee mu gën a dolliwaat rek incha allah ñu mën koo yóbbuloo wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di ci gox yi fasantikoo yi ñu ngi leen di nuyu di leen baalu xaq di leen baalu xaq di leen jéggalu ci at mu weer wii génn muy weeru koor gi mboolem lu ñu ci taxe woon ci ay nawaafil yal na yàlla nangul ñu ko bu ñu ko nangulee yal na ko ful mboolem liñ ci woor yal yàlla nangul ñu ko waaye bu ko nangulee yal nañ ko fulal mboolem rëcc-rëcc yin ci am nag yal nañu ko jéggal te jëleleel ñu ko jëf na ni nu toll yal nañu nangul na mu toll jëf na ni nu toll ak nim ñu ko sante woon yàlla nañu ko nangul na mu toll jéem na noo rafetal dañ doon jéem moom nag moo xam lu rafet yàlla nañu defaral lépp ba rafet lu ci ñaawoon yàlla na rafet mbokk yi ñoo ngi nuyu euh, di ndokkeel waa kennal TV kennal si Ahmad Bamba TV ci njiital Serigne Soare Murid Sadikh mi nga xamante ni boo ne jaalibatul maraaxib rek doy na sëkk ci adresse am ndax ku ko miin miin nga ci yoxoom jaalibatul maraaxib waaye ku ko miin miin nga ci doxinam jaalibatul maraaxib waaye mu am benn slogan bu am solo boo xam ne moom lay symboliser muy kenn nal see Ahmad Bamba xaadimu rasul waxtu wu ne loolu mooy nekk ci ay doxam ba mbooloo mi mu àndal sax ban formé lii loolu mooy seen siaar mooy seen tur mooy seen symbole di ziar sunu doom baay Serigne Massamba Gueye mu bëgg Bamba Gueye euh, doomu bëgg Bamba Gueye nag bu dugg see ci Ahmad Bamba kenn la day confirmeel baayam turam wa muy bëgg Bamba xanaa li sëriñ Sam wax rek doy na sëkk ak doylu mooy fexewaat nafaraat bind bi xalifatul am digle muy fexe ba julli ñu nekk benn di ko digal mboolem murid yëpp fu nekk rek nan fexe ba julli ñëpp nek ben di waxal rek ni wéru koor wi ñu génn sëriñ bi lim ci am da bari lool ndax ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'du li fi ramadan na jaza sëriñ bi day wax ci wa kana aqna alaynaa nasrul mu'minin mbolem yool yu mag yi yàlla di faye ak tuyaaba yu mag yi mako ko liggéeyal yépp ci wéru koor la ko teewal jox mako داري ونك ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنا والفيضان كون من وانا ويري نمتلو واي ليليب نك عندك ويري لمي مغلب نن يغني جنجل خصة خصة بسرين أمنا صلى الله moy netali jaar jaari serigne subax ngir namat pass passu talibi mu ñaan ko at tarbiyatu bil qisas yar ci na alquran moo wax ni nahnu naqussu alayka ahsana alqasas dinañ leen nettali ay xissa waaye anam ga gën a rafet wax ni xissa nag am na solo ndax dan mën nañ cee waaru jàngate ci defaraat jikko yi laqad kaana fi qasasihim ibra li ulil albab waaye nag kii jàngale xissa yi nag kooku ma war a am xikma am pédagogie am pédagogie ba bu dee joxe xisas yi wala xasas yi bu dee joxe xasas yi mu joxe ko ci joxin woo xamante ni dana defar pas-pasub taalibe ndax kar xissa am na solo lool boo xoolee soxna jaara doon na yar ay doomam ci xissa ba tax sëriñ bu mag bi teeloon na tàmm naa fi la te xissay gaa yu baax yi mu ko doon nettali la kon daal ñoo ngi ndokkeel mbooleem jullit yëpp rawatina ak mbokki murid saadix yi nekk ci dëkk bi di ko jaare ci al mumattil li mumattilu tariqatil muridiya a Cheikh Salihu Touré xafidahu llahu wa ayadahu wa nasara moom mi nga xamante ni moom la fi sëriñ bi teg mu wuutu fi mbooleem doxinu yoonu murid yëpp di wax ni rek yal na saa sàmm ko dëgëral ko kattanal ko moom Touré Balla bi mu fi ñëwee ba léegi yoon wi avancement bi mu am ci doxin wi jëmmal na daal la sëriñ bi woon nasran azizan yasmalul kibara mahas siqaari rutlahum man baara ndimbal googu sëriñ bi waxoon ne saaboroom borom dama dimbali waaye ndimbal gi nag daa làmboo mag ñi ak gone yi fi mu toll nii ñëpp gis nañ seen bopp ci murit gi mag ñaa ngi yëg seen bopp ci murit gi ndaw ñaa ngi yëg seen bopp ci murit gi ndax tolloon na jamono joo xam ne ndaw ñi jàppoon na ni jaalibatul maraaxib du seen cër nuuru daalin du seen cër waaye nag ñëw na yee salaat doxin wi nammaat pas-pas yi ba ñëpp xam ni kenn ku ne ku séddu bu mag séddoo gone war naa mën a séddu ndax bi muy wax dañuy yasmalul kibaar maha siqaar na daj mag ñi te dajaale gone yi kon gone yi am nañ ci cër kon kooko mënuñoo ñàkk di ko sant ko gërëm euh, di teg ngërëm leeg cant gi ci taawam bi di seen seexu naa Touré muy seen seex Touré ak mboolem waa daara ji ñëpp Euh, di wax rek ni bennoo gi nañ ci delluwaat ndax lislaam dafa ñëw fekk tàqalikoo mu indi bennoo gannaaw dafa fekkoon tàqalikoo nag mu bennale kon nag bennoo moo ëpp sens ndax ki solutionné tàqalikoo mooy lislaam ndax dañu woon fa asbaxtum bi nicmatihi ixwana iskuntumu aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwana dama leen fekkoon ngeen noonoo ma benn la seeni xol benn la seeni xol ba ngeen mujj nekk ay mbokk nekk ñu bennoo nekk ay mbokk kon bennoo googu lislaam benn le te alquran jàngal ñu ko nan ko dellawaat nafaraat ko te xamante ni mbooleem turux suufiye yi lanu xam ni doxin yi yi ñoo bokkut ak marki yi waaye teewul nag objectif bi benn la mooy li ñuy def fexe ba yeggale nit ki ci yàlla rek te sëriñ bi wax ci masalik kullu waliyin suuta sabubin abad bi zayli man arsalahu alxaqul ahad wallu yàlla bo gis rek xamal ni fam tek tànkam moy ci mbicc yonante bi alayhi salaatu wasalaam mooy ci sunna rek la ko tek kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kullu amin wa antum bi khair insha allah taala